aw diis ak naqar fees del ci mbokki tiktokor yi rawatina ñi nekk ci région bu jurbel waaye fii ci diwaan bu ki nu minon lool ci wàllum reetaan loo nit ci xarala yu bees yi di tiktok ñu gën koo min ci mbay sàppar sàppar moom mi la dey moo amal ak l'accident ci suba gi ci yoonu ndindi bi ci lu soriwul dara gaaraasu daara jolof moom mi dey ci daamaar gu yoroon na ko moo mujjee saran ba ñaari elef jot ci ñak seen bakkan mo mi dey ci ginnaaw gi lanu mujjee xamle ne dafa mujjee faatu ki di mbay sapar sapar nekkoon nak ku nu miin lool ci walum internet bi ak ci télévision yi mu nekk ku daan reetaan loo nit ñi moom mi di jëm ji di mbay sapar sapar ñëpp mi nan ko lool moo mujjee wuju sunu borom ci l'accident bu am na ko ci yoonu dindi bi lu soriwul dara su dara jolof moom mi dey dem na tey bàyyi tiktok ginnaaw di ko ñaanal yàlla sunu borom xaare ko àjjana yi gën a kawe